sëñ Mbacke ñoo ngi lay nuyu boole ko di la jàll sëriñ euh, Serigne sëriñ euh, Cheikh Sidi Moukhtar ba noppi bàyyi la rek nga nuyoo ko mbokk yi internet yi la sant Sénégal. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di fay di sant bu baax a baax di leen dalal jàmm di nuyu mboole mbokk yi seetaan di leen jàlle itam ku baax ki fi jóge te ñun ñëpp ci bokk ko. di leen euh, gërëm itam ci seen taxawaay bu rafet boo xam ne taxaw nañ ko ci ci bis yi. Euh, ginnaaw seen bi gis nañu maanaam euh, confiance bi mu amoon ci yow ba yëkkati woon li nga xamante ne que moom mooy baatu communication màggal gi ak yu mel noonu tegoon ci loxo tey boo ñu leen définir personnage yu Cheikh yu bëri ngeen ànd. Cheikh Sidi Mokhtar mooy nit ku nit ku baax la rek loolu foog naa ne mooy mooy baat bi nga xam ne. moom moo koy définir moom mooy résumé li nga xamante ni. sañu Mbacke ñoo ngi lay nuyu boole ko di la jàll euh, sëriñ euh, sëriñ Cheikh Sil Muxtaar ba noppi bàyyi la rekk nga nuyoo ko mbokk yi internet yi la sant Sénégal. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di fay di leen sant bu baax a baax di leen dalal jàmm di nuyu mboole mbokk yi seetaan di leen jàlle itam ku baax kii fi jóge it ñun ñëpp ci bokk ko di leen euh, gërëm itam ci seen taxawaay bu rafet boo xam ne taxaw nañ ko ci ci bis yi. Euh, ginnaaw seen bi gis nañu maanaam euh, confiance bi mu amoon ci yow ba yëkkati woon li nga xamante ne que moom mooy baatu communication màggal gi ak yu mel noonu tegoon ci sa loxo tey boo ñu leen définir personnage yu Cheikh Sidi Moukhtar ginnaaw at yu bari ngeen am. ci ñun jamono Serigne Touba nekk royukaay ci taalibe yi nekk royukaay ci mboolem jullit yi. Euh, maanaam est-ce que euh, jamono mi mujj maanaam les les derniers instants de seen Sëriñ Muxtaar est que bokk nga ci ñi ko euh, ñi ko jotoon a gis. déedéet nag dama doon éviter di fa dem ndax kilifa day am foofu bu fa tolloo da koy da nga koy bàyyi boppam loolu moo tax ba jamono yu mujj yi mun benn yoon boo xam ne sax dem naa fa dinaa rek téléphone ñi ko jege ne leen maa ngi siyaare sëñ bi bàyyi bàyyi yaram waa ngi am tan laa doon def ndax itam man noonu lay doxee kilifa am na bu fa tolloo euh, par pudeur du bëgg di di di encombrer du bëgg di ñëw di envahir espace boo xam ne xañ na ndax boobu aussi li mu gënoon a soxla mooy noflaay ak dal te te itam loolu mooy lim yeyoo woon hmm, moo tax man boobu doxin laa ci amoon. sëñ bi bokk ci xalifa Cheikhul Khadim yi xam ni. Euh, Euh, dimension euh, li mu amul ci ambition dafa dafa dafa dépassé wuñu jamono mooy ci wàllu ay projet gis nañu yi mu yi mu projet yi nga xamante ne que teg na ko bàyyi ko fi ak projet yoo xam ne nisaroon na ko bàyyi ko fi euh, tey mën nañu xam yooyu mën a soon bàyyi fi ban ngeen ci fas yéene am. waaw li li li jiitu mooy dikk ci bilan bi nga xam ne def na ko <coughs> ndax Cheikh Sidi Makhtar dafa am dafa jëf am nga jëf moom dafa am solo dafa dafa am bilan di bilan boo xam ne. lu lu lum jëf la ñëpp teg seen naa buñ génn fii ci penc mi rek jumaa ji kenn ku ne gis na ko def ci lu jeex buñ demee Ndakaaru kenn ku ne gis na jumaa ja fa nekk kenn ku ne gis na kër sëñ Tuubaa yi li ci mujj rek mooy ñu gis ni nga xam noonu yàqalee dëkk bi nekk loo lu tëwoon la tey ji mbedd Tuubaa yi foo taxaw gis nga ni mu yaatoo loolu loolu loolu aussi du lu am solo gis nga fi ne Tuubaa tëli yi ni nga xam ne noonu la mel ci dëkk bi ah, kon te loolu lépp itam suñu borom def ci ci ayam la bokk ah, mun li ëpp solo nag ci ay gi mooy ni nga xamante ni benn la ndax loolu mooy li ci ëpp solo fédéral islam jëpp feex ba jullit yëpp nekk benn tey jii foog naa ne diggante kër diine yi ni nga xamante ne bii noonu la rattaxe gëw ma ne mës na rattaxe noonu te loolu lu ci ëpp ab liggéeyam la mbooleem nag ñu ngi yeneen kilifa diine yi nekk ci yeneen kër yi itam bëgg loola jàppale ko ca ba sunu borom jox jox leen ci résultat bi nga xamante ne bii am nañ ko ci. kon moom Cheikh Sidi Mokhtar dafa def lu rëy rëy rëy ñu di ko ñaanal sunu borom rek mu mu fay ko loolu nga xam ne def na ko ak loolu nga xam ne liggéeyal na ko Serigne Touba. ci li nga wax nag euh, moom kenn ku ne xam na ne Cheikh Mountakha moo nekkoon jëwriñam kon lépp lu mu fi bàyyi woon ci ay naal wala ci yoo xamante ne bi xañ ne jot ak itam loolu foog naa am benn xilyaar boo xam ne des na ko ci am ndax moom ci jëmmum Cheikh Sine Maxtaar kon Sëñ Tuubaa gi amu ci woon signature ñoom Sëñ Muntaxa la ko bàyyi woon kon dafa mel ne moom day joxe ndigal waaye bàyyi leen ñoom ñu doxal. kon nag euh, personnage wu Cheikh Mouhamadoul Muntaxa. Sëñ Muntaxa moom itam nitu yàlla la nitu yàlla la di nit ku woyof di nit ku di nit ku baax. nit ku bëgg nit ñi nit ku bëgg bokk yi nekk nit ku lewet euh, nekk nit koo xamante ne bii mboolem bokk yi mboolem taalibe yi mboolem dina ñëpp nangu nañ ndax baaxam boo boo boo boo dikkee fi moom sax eh, ni muy ni ni muy def dalay dalay dalay yéem te ñu ko xam ñëpp nag bañ ko xamee ba nëga ni noonu la mel loolu jékki-jékkut ba jamono ji rek mu mu soog a mel noonu kon moom itam tey jii bi nga xamante ne bii suñu borom def na ko muy muy Serigne Touba xeli taali bi yëpp euh, dal na ci moom ñëpp itam xam nañ ne fépp foo xamante ni fa la Cheikh Sidi Makhtar bàyyi woon liggéeyu Serigne bi foofee la koy jëlee moom itam àggale ko incha allahu rabbi. jërëjëf Serigne xanaa rek ñu bàyyi la nga tàggu euh, ko mbokki internet yi. nga jërëjëf ñu ngi ñu ngi sant ñëpp di di gërëm ñëpp ci seen taxawaayu rafet ci bis yi nga xamante ne bii tim mooy nekkoon bi si sëñ bi nelawee sëñ bi làqu ñun ñëpp ñu dikk Touba ànd ànd ko ak ñun ba taxaw ci suñu wet ba ba ba xañ na naqar wuñ ci waroon a am rek bokk gi ñu ko bokk ak ñun tax na ba ba ba gën naa woyof kon nag ñi ngi ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen ñaanal jàmm ñu delluwaat ca ci seeni kër te te lu mel ni gëj fii lu mel ni tim gëj feneen sunu borom def ci sunu borom def ci réew mi jàmm te jubóo gi nga xamante ne bi Cheikh Sidi Mokhtar doon na ko dox ci biir diina ji ngir boole ko loolu itam ànd di wéy ñun ñëpp ñu sàmmal ko loola ndax loolu bokk na ci li nga xamante ne bii mooy lim ñu fi bàyyee loo xam ne war nañ ko war nañ ko sàmm muy ndigalu suñu borom wante aussi muy suñu kóllëre ak moom kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu